asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nekkoon doomu Serigne Touba bu mujj ci kaw suuf Serigne Saliou Mbacke mi ngi gën àddina ci fukki fan ak ñeenti ci Zulqinda di diggiw tabaski ci atum 1333 ginnaaw gàddaayuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook le 22 septembre 1915 ci Diourbel ñu naan ko njaareem mu doore njàngum alxuraanul karim ci waajurum wu góor di Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo sos yoonu murit ginnaaw bi la ko jox Serigne Alassane Diakhaté mu jàng alxuraanul karim ba mokkal ko bind waaye jàng téere xam-xam yi ci sëriñ Modou Dem mu njaareem sëriñ Abibu Mbàkke sëriñ Mor Saasum Jaxate ba ci sëriñ Maxtaar Sekk Jeng Guyaar bu di sëriñ Saaliw Mbàkke nekkoon ku am xam-xam lool xarañ am culture générale waaye ne woon ku maîtriser littérature arabe rawatina li nga xam ne moom moo di seen kàllaama waaye doonoon spécialiste ci wàllum géographie waajurawu jigéen di soxna faati jaxate nekk doomu sëriñ moodu jaxate nu ci waajuram yooyu le sëriñ saaliw mbàkke jëlee ci ñoom sell dal maandu rafet xol yaatu bari sutura am yërmande mën a muñ nangoo liggéey ñu tarbiye ko jaarale ko fépp fu doomu soxna di jaar mu nekkoon ku déggal magam yi rawatina ñi nga xam ne jot nañ fi jaar nekk xalif général des mourides sëriñ mohamadul moustapha sëriñ fàllu sëriñ abdul ahad ba ci sëriñ abdul xaadir mbàkke mi nga xam ne moom la wuutu ci le 18 mai 1990 ci la Serigne Saliou Mbacké nekkee xalif général des Mourides ci jamono bi muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom wéyale liggéeyub Serigne tubaab bi yóbbu ko fu kawe lool amoon taxawaay bu am solo ci lislaam rawatina yoonu murit Serigne Saalihu Mbàkke liggéey ak jaamu yàlla rekk la xamoon diirib muy nekk xalifi général de murit liggéey liggéey yu am solo lool ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci lotissement bi nga xam ne yaatalaat na ko yóbbu courant bi ci quartier yu bari yoo xam ne amuñ ko woon ci jamono yooyu assainissement bi liggéey ci liggéey bu am solo taxawal fi ay forage ay tali ba ci jumaay Tuubaa ji mu yesalaat ko def ci ay milliards yu takk lool këram gi jàkkaarloog jumaa ji da daan fees dell ku ne la fi daan dalal te ku mës a ñëw fi moom boo fa jugee sa xel dal ndax jëmm ji dafa jeexoon tàkk ci yàlla suñu boroom mu sos ay daara yu takk lool li mu taxawal ci ay daara jege na fanweer ya ca gën a siiw ñu mën ci jàpp got xabaan njàppandal lagan ndooka njurul daaru salaam ba ci xel xelkom gi nga xam ne 45000 hectares la gouvernement bu Sénégal ci jamonoy président Abdou Diouf ñu jébbal ko ko mu def fa fukki daara ak juróom di fa jàngale yar tarbiya ak di fa bay mbay mu yaatu lool Serigne Saliou Mbacké bokk na ci producteurs yi gënoon a mag ci réewum Sénégal mu daan participer bu baax a baax ci li nga xam ne daan suqali koom-koomi réew mi daaram ji nga xam ne moo di Xelkom biñ ko sàncee ci 1993 ba ci 2007 gi mu fi bàyyeekoo la fa mokkalee alxuraan ci ndongo jege na ñeenti junni ñu ko daan woowee boroom jamono mu nekkoon ku bëgg alxuraanul karim lool taqoo woon ak moom rawatina xasida yi sëriñ tubaa digganteem ak mbooleem kilifay diine yi nekk ci réew mi rafetoon lool rataxoon lool ndax bëri na ñu daan ñëw fi moom ba ci ñi nga xam ne ay kilifay aada lañ ni ko lislaam ñoree taxoon na ba jullit yi nga xam ne dañoo nekkee ci réewum France bañ amee jafe-jafe ci immeuble ñu dëkkoon ñu bëggoon leen faa génnee Serigne Saliou Mbacké yebal fa délégation ci janvier 2002 te dëkk ba nga xam ne moo di Taverny nekkee ci réewum France mu jënd boobu boobule jébbal ko jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma dundam lépp jàngale la woon roy ko doy na ci képp ku bëgg doon ab jullit bu mat ci fànn yépp yërmandeeb Serigne Saliou Mbacké foo ko takkoon weesu na ko mi ngi fi bàyyi ko wuy ji suñu borom ci ajuma dëppook 28 décembre 2007 dëppoo nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski atum 1429 ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi muy am juróom-ñeent fukki at ak ñett ñu denc ko ci penku jumaay Tuubaa ji Sëriñ Saaliw Mbàkke bàyyi fi njaboot gu sax dàkk ca la mu woon muy liggéey ak jaamu yàlla cofeel gi doomu aadama yi amoon ci moom rawatina taalibe yi tey ji la gën a yokku